am na foo xam ne da nga fay toll. Mhm. Euh, boo moytul rek tu regardes les autres de de de haut. Mhm. et à l'époque encore euh, étudiant au CESTI bi may def sama mémoire de fin d'étude man ci làmb ji laa def. Mhm. ni ngay wax ñoom Balla Gaye <coughs> Tyson ak euh, euh, ñoo ñoo fi nekkoon. et pour marqué les esprits il fallait une star. ci tournage bi. et il savait ma wax ko ko ne ko c'est pas destiné à la diffusion donc xam nga ni ma la wax. loolu koo ko wax surtout bu dee homme de média wala yooyu te mu ne lii daal. loo xam ne duñ ko waneek yooyu lu ma ciy perte sama temps. Mm-hmm. ma ni ko diw laa bëgg interviewé mais ñoom it xam nga comme nekk nañ ay star dañuy inaccessible Balla Gaye mm-hmm. euh, dañuy jafe jot pas inaccessible bàyyil ma ni ba jafe jot. Mm-hmm. moo ko woo ñu daje këram. añandoo ko ak moom mu boole ma moom ne ne ne ne mu Ah, loo bëgg loo bëgg na la ko na la ko kii Balla dem yóbbu ma ba yóbbu ma fi nga xam ni fa la dooree <coughs> jàng mécanique mhm. nettali ba nettali bon xaritam yi fa nekkoon yi nga xam ni les a conservé kenn ki ne ma ku dafa yàgg am doole mës na foog man fii di di foog man xoj ma ba ma xam te yëgu ko <laughs> mu ne ma dama bàyyi rek ma ni lasar daanu mhm. bon voilà on a on a mais su sont des choses qui restent et qui marquent sa disponibilité jour boobu woo maa ko woo mu ne ma ñëwal sama kër maa woo mu ñëw fii fekk plusieurs semaines ñu jéem mu tëgg mu ne ma ñëwal daf ko woo mu ñëw mu ne ko lu ñu bëgg lu ñu bëgg defaral lañ ko ak ñoom ñu ànd toute la journée tournage boo xam ni ba léegi c'est dans nos mémoires ñuy rendre hommage aussi à Balla Gaye pour sa pour sa disponibilité macha allah. Mboup waaw on perdu